ok ok noonu lay demee instant bi yaa ngi am noonu euh, Amza K Sikan ah, euh, muy premier track ama ah, ok léegi dañ déglu track bi juste pour ñu mën ko indi après euh, ñu waxtaan si moo wax ñu sound bi titre bi ak bon noonu lay demee ak ñu never must laa fi teg ku mu ko bokk fukk capitaine si benn gaal ku nekk sa jow te gaal ko mënul dem foog dem waxtu wax a jot dégg ko ipo foog ma wax booy dëkk bi yes rapajo dañoo jiw tool bi kenn si yenu bayal bu day booy duñ ko nangu booy maa nga ñox te di nga yem booy yanu bi nga yenu diis est aata nga ko saaga ndey laaj nga maama est-ce aata nga ko dip turu maam jaamur yi nga baxal est-ce na ñaata nit ñoo leen déglu xam nga ko waaye taal bi nga xam waaye nga am booy du ko saani an bol respect si man si yenn comme si mën a doon doom yi ngeen juróom maa nga dëggal seen sang boo koy capitaine benn gaal a ku ma xam dafa jaate yoru moom mënuloo moytu ba moytu moom wax ci dafa dooy wax ci dafa dooy kon dafa dooy fukki capitaine si benn gaal gën a yor sa jow gaal ga mënul dem ku ma xam dafa jaate yoru moom mënuloo moytu ba moytu moom wax ci dafa dooy wax ci dafa dooy kon dafa dooy kaay ma sàcc dee a wax la ndoo mën ni maa ngi yëmal mel ni Mandela Mandela jobal dem sa yoon jaru xaar tuur onkolo koñ pikondoo bi nu mu ko tayle su nekk gisuloo sa bopp yëmbal wax ma booy ngaa ko dugg jël génn gën a matati bàyyi kala mili laa saaga ma tollu ko lu des tamit ko te nga joob saaga ma tollu ko bippe woo moo te nga ne danga ko woo dina wuute doo ko woo waan non joodu yaay kan ba ngay rabbi saaga démb poro nga saful tubaab segal sa baat yoru jabu xatam ndaa ji bokk benn ndaal alma pot ma naan wan dib nga ko omzo VIP concert këpp ngeen li ngeen jotoroor seen bata taba si bi teen foog ñu lukat foog ñu lukat

ku ma xam dafa jaate yoru moon mënuloo moytu ba moytu moon wax ji ah, dafa doy wax ji dafa doy kon dafa doy ah, dafa doy ok noonu lay euh, demee comme ni mu leen ko wax woon sànq euh, Amza Kassik euh, moo doon sama invité ci couleur urbaine ok ñu ànd seeg Famousta léegi dañ koy def benn plateau bu nga xam ne noonu lay demee plateau jëmbal lay doon dañuy jaxase noonu lay demee léegi ma bàyyi ko mu présenté wu. ok noonu lay demee présenté na am na ku nekk si ligne ñu jël ko ñu jël ko en alo waaw yaa ngi en direct yaa ngi ci. man Yëmbal. Yëmbal ah? ah ok kon mën nañu wax que ni euh, Amza Kasik moo waral euh, woote bi ah. moo wootaloon war moo waraloon moo moo ko waraloon kay. Hmm, ok mais benn benn question rek laa lay yow euh, waa fan nga waa mën nañu wax que ni yéen ñaar yéen bokk dëkkuwaay. waaw waaw ñoo bokk kay. waaw léegi yow lan nga ko mën a seedeel lan nga ko mën a seedeel instant bi ah, lu ma ko mën a seedeel moom bëri na. Hmm. ku baax la ku yaatu. ku bëgg hmm. nit ku mu sa gis ko comme boppam. ah. waaw di ko conseillé. Hmm. étudier yëpp yëpp nekk lay jaar. moo xam ni mu bëgg yàlla na ko yàlla seexul xat yàlla ko ak hmm. seexul xat bi mu defal. Hmm. ok moom mi ngi lay dégg mi ngi lay dégg mi ngi lay dégg instant bi. am yee wala boobu. ah mag sama yaa ngi ci jàmm. waaw ah, ça va alhamdulilah. journée bi. mi ngi nii rek. waaw ah, kontaan lañ ci woote bi de. ñoo la gën a kontaan yow xam nga ni yow foo foo foo foo foo deewee rek ñu naan fay garab yow yaa ma gën a xam. waaw gis nga <laughs> waaye yow ñoo far. ñoo far incha allah. lépp dina baax incha allah. alhamdulilah. ok merci euh, dafa leer ñuy ñu ñu koy jaajëfal audit boobu nga xam ni euh, dugg na léegi euh, am na sa benn track mun teg léegi track bi gis naa bon classe bi nga xam ni mi ngi nekk ci rab bi ci ngay wax. seeɗa nga ko mel omzo dip ngaka ak one lyrical parce que tamit mën nga wax ni instant bi ni eh, peut être ñom ñoo waral ciow depuis que album mu dip bi génné gaay ñom dañu gis que ni dip di leen clash légui ñom ñu riposté peut être système riposté am ñu xam dañu saga expliquer faire dem non légui yow nga reprendre ngay wax que ni comme que ñom c'est dire que warul na game bi warul na gëna nice quoi hmm. bif nak du ñaan classe classe mais classe xam yenn saaga yi quoi. parce dañoo war a sóoraale maire yi dañuy déglu en plus paa yi dañuy déglu. Hmm. am na ay suñuy frères ak suñuy sœurs yoo xam ne ñu ngi hmm. mais est que est-ce que gisoo tamit euh, comme par exemple noonu euh, classe boobu ñu def noonu tamit moo indiwaat tamit de telle sorte que tamit public bi nga xam ne tamit instant bi ñu ngi waxoon que ni rab bi dafa day expliquer affaire demoon ñu ñëwaat euh, gën a intéressé wu ci rab bi wala. ok dafa leer dafa leer euh, dégg nañ li mu wax ci euh, track bi nee na boo gisee lu tax euh, mu wax lool ça veut dire que peut-être hip hop fi mu toll bon waroon na gën a jël beneen destination comme par exemple comme ni nga xamee hip hop bi mooy ci côté yeete sensibiliser nit ñi. mais tamit est-ce que est-ce que tamit yaakaaroon ni comme par exemple tamit ci la ci la bokk ci game bi comme des fois bu naan comme côté peut-être bon classe parce que tamit bon classe classe classe tamit mën nañ wax tamit ci hip hop la bokk. euh, ça dépend ça peut être positif ou négatif. boo xoolee benn cadre bi laa lay wax. Hmm. mun na négatif mun na positif. Hmm. mais sama gis-gis warul gën a négatif quoi. Hmm. mun na positif. ñu dégloo ko mu gën a nice quoi. bu ngi xawee négatif rek am na yenn paa yoo xam ne du ñu bëgg seen doom dugg si game bi. parce que loolu tam war nañ koo sóoraale. parce que boo calculer au school yi démb ak tey wuute na. parce que démb pour nga gis benn parent bàyyi doomam mu rab. Mhm. day difficile day obligé booy mooy obligé jaayante ko ba am si yenn affaire yoo xam ne paa paaraay après yu mujjee bàyyi ko ni xam na xam mhm. gëm-gëm la quoi. mais est-ce que yow gisoo ko ni léegi comme par exemple côté classe bi lañ gën a favoriser que que boo jëlee euh, lii bopp comme par exemple hip hop contexte am souvent dañ wax que ni sensibiliser la euh, yeete li population bi di dund expliquer affaire yu demoon est-ce que gisoo ko ni dañ xaw a bàyyi lool gën a biir ci côté boobu. waaw wàllum thème bi. wàllum tamit tamit joué na si. Hmm. parce que fu ñu toll nii ñu niveau booy nii classante rek nañ jël quoi. Hmm. ñu siy bind thème dafa néew bëriwul. mais naam tu es obligé comme par exemple am na yenn rajo de la place yenn DJ de la place pour ñu éviter il faut nga def benn genre comme ni nga ko waxee benn benn classe bu xaw a soxor nii. wala nga tàppe pour gars yi mën la invite ñu naan booy bi peut être kii ah moom moo nekk au top parce que classe na kii wax na ci kii explique affaire dama noonu parce que loolu tamit du animateur yi tamit tamit. waaw tamit loolu xaw a dévier kii bi. loolu tamit boo xoolee da ciy quoi parce que tamit nit ku ne am nga droit baax sa bopp wane fi nga dëkk. xam nga ne maay king quoi. parce que hmm. boo xoolee king yi bëri nañ. Hmm. waaw mais dañoo wuute rek mais king yi bëri nañ ku ne yaa ngi wane ne king nga. Hmm. mais daa am par niveau quoi. ok dafa leer euh, noonu lay demee comme lu mu leen ko waxee woon euh, Amza Ka Sick ak euh, Famousta ñoo doon sama invité mais noonu lay demee premier dañ koy introduire tamit parce que tamit mën nañu wax ni tamit Famousta am Sick sa gan la ok dañ koy ah, ah dañ koy ah, dañ koy dalal noonu lay demee. waaw am si ñoo leen bëgg bu baax. mais nag euh, maa ngi rafetlu invitation bi def xam nga mm. mooy loolu naaj na trop quoi xam nga. Mm. di rafetlu teewaay bi fii nii xam bëggee tamit gars yi nga xam tey ñoo ngi costé di déglu 93 euh, point 5 Ngaye mm. ñoo ngi bëgg waaw noonu lay léegi dañuy déglu deuxième track bi ah bu Amza Kazik acca. Girl, my name. Get boy. I'm mom the boy. Get the boy. I'm Manila. Manila. dropping at that Manila. Mom the Manila. Mom the Manila. I'm sorry at that Manila. Mom the Manila. Mom the Manila. Some dropping at that Manila. Mom the Manila. Mama no me nina, I'm sorry, nigga that's Nila. Mama my gamma, mama my gamma. Throw me the day, my nigga. Mama my gamma, mama my gamma. When you both gamma, my nigga. Mama my gamma, mama my gamma. Throw me the day, my nigga. Mama my gamma. My mama game, we need both game, my nigga. Nigga, nigga, nigga, nigga. Ah. Nigga daaj may wekk seen i contour amul ko fi am fit. xaar yu fi ne lay ñëw ni nga xontu li nga dëgg du xëy. one two three nigga dëgg du. dooli sa naissance dëggali sa deese am za comme lig. ah eh, fu ñu mën a danga nekk gone maa nigga yow. dina feeñ tele duñu wone am za mënoo rab loolu bàyyi mi ngi booy ku la wax kaa sik dafa sik naka dul bàyyi seen wax du bàyyi lu ñu utalee lu ñu tele laa andi dëgg dëgg am za kon dama sik maa ni aal na ko fi ka feel du ñu vrai MC foo lañ day tax fay nii foo ruus gisagoo njuli bu fi juli soo koy waat maa ni noo di nga lakk noo di nga lakk am za maa ni noo di nga lakk soo koy waat ni noo di nga lakk doo du ma laax am zaama ni ka doo du ma laax ma mii la ma mii la du kenn ni nga ma mii la man mii la ma mii la du kenn ni nga man mii la maam na ma nii la maam na ma nii la sama doom li ngay def nii la maam na ma nii la maam na ma nii la am zaa li ngay def nii la maam na ma nii la maam na ma nii la sama doom li ngay def nii la maam na ma nii la maam na ma nii la am zaa li ngay def nii la maam ma ma géem maam ma ma géem doomu na téemaa ni la Mama mo game, we the both game my nigga. Mama mo oh, game, mama mo game, mama mo game my nigga. Oh game, mama mo game, we my nigga. Yeah, what's up? ok noonu lay demee uh, nee na maamam moo ko wax que ni uh, nii la. yee wala boog maamam ngeemu quoi. ok dafa leer legi tamit uh, mën nga njok jox explication si sound bi. waaw waaw maam dafa moom a ngeem boobu tamit sa facile à décontinuer quoi. Mm-hmm. parce que depuis bu ñuy nekk ay booy mën nañu ne. si direction bu ñu mënta jëm rek maam moo ñuy xelal quoi ba suñu ñëw fii maam moo ñuy jox autorisation maa ngi koy nuyu de passage ñoom ak paa bi yëpp. ok mën nañ wax que ni euh, Amza Ka Ka. Amza Ka Sik euh, moo ko yar. Mhm. ah. ok euh, tamit est-ce que euh, loolu euh, moo tax nga génne saan bi de de telle sorte que nga ni maam moo la. ngem et puis nga ni maam moom la nii la juste tamit sa prouve que peut-être am nga accord parental ci li ngay def. waaw waaw parce que mënoon na bu ñu njëkk bu ñu siy dugg boobu nekkoon parents yi quoi dañ doon jéem a làqatu sax parce que tamit gars yi wax nañu si lu ne mais dañoo dem benn instant xam nañ tamit lu ñuy def nii dañ koo gëm dañ koo bëgg. te war nañ cee mën a am ndam quoi. Mm. sound bi yaa yaa ma gën a xam moo tax ñu xaw ko rëdd noonu ne maam moom a ngeem ñu bokk ngeem néega mm-hmm. waaw euh, comme par exemple bu ñu doon wax euh, Amza ban style de musique lay def ban style de musique maanaam ci hip hop. ban ki classique ngay def wala prep euh, wala afrobeat wala lan wala comme gars yi ni ñu koy waxee artiste la hip hopeur la wala wala lan mm-hmm. exactement. waaw waaw ñun juste que. mënuñoo tënk suñu bopp ko hmm. waaw parce que mun nañ classique yàlla def na mun nañ classique. Hmm. mun nañ trap mun nañ afro. Hmm. kon mënuñoo tenk suñu bopp si musique. mais c'est que am na benn côté boo xam ne ñu ngi fay nekk gum en attendant parce que tamit comme demoon dem nañ ba benn inst classique moo fi nekkoon. après trap ñëw. après leneen mooy ñëw tamit moo tax mënuñoo tënk suñu bopp. waaw foog ñuy. def ordre par ordre rek. ànd ak affaire bi dem ak moom quoi. Mm. bu ñu demee nag ba si biir gis nañ ne war nañu mën a tënku carrément. Mm. Mm. comme ni ko gars yi di defee. am na ñu tënku mais que dafa xam nga euh, artiste rappeurs yi dañu xaw a grave des fois euh, nga des fois dañ naan que je suis un rappeur xam nga léegi ñu dem ba ci biir après ñu xaw a yolomal xam nga yeneen ak yeneen. ah moo tax moo moo tax tamit euh, ma posé la question boobu noonu. waaw comme damay répété waat même question ah. hmm. parce que tamit xam nga ñiy déglu tamit war nañ see bàyyi waat xel balaa suba ñu naan. Hmm. saa yi Amza daa def si virage souvent ni gars yi. Hmm. actuellement moom tënkuwuñ. waaw actuellement moom tënkuwuñ dañuy def classique. dañuy def trap dañuy def afro. mais nag bu ba si biir gis na ne war nañoo mën a tënku après dinañ tënku quoi. mais actuellement moom jëlaguñ décision pour tënku. ok léegi léegi bu doon wax comme par exemple Amza euh, sa carrière sa carrière maanaam euh, ban année ban année nga dugg ci hip hop bi ban année comme buñ ko doon kii buñ ko doon jël di ko def ci temps ñaata kii la ñaa ñaataat la. waaw à peu près man fu ma jàngee hip hop mu commencé conseil hip hop dëgg-dëgg mooy sama village papa quoi. Hmm. jamono jooju maa ngi def quatrième waaw dem xaw bu ñu ma nee demal tool dem wuuj hmm. may déglu gars yi nii bu ma demee moo damay toog si taatu garab yi. Mm-hmm. xam nga benn instant ma gën a xaw. waaw damay jógee village dem town ndax hip hop rek. Mm-hmm. après mu jëndeelu paa bi xam ne lii mënul dox mu jëlee waat ma mm-hmm. village yóbbuwaat ma town. waaw jamono jooju maa ngi def quatrième. mais moom bi mu lay jël di la yóbbu town xanaa xamul que ni town fa la bagage yi nekk foofu da lay gën a yombal affaire si si fa la gën a eh. si si waaw eh, da lay gën a <laughs> ok même pas sax parce que ñun town lañ juddoo foofu nañ yaroo hmm. suñu gaal tamit foofu la nekk mais suñu village natal xam foofu def quatrième foofu lañ hmm. ok léegi dafa leer euh, bon euh, ni mu doon waxtaanee yow je crois que euh, terminal terminal ngay def ah? waaw ok kon yéen ñaar yéen a bokk même situation parce que moo tamit. terminal terminal lay def léegi. question bi yéen koy bokk. maanaam rap et étude est-ce que mën nañ leen a boole. rap et étude est-ce que du leen yàqal des fois. tamit seen kii comme euh, comme par exemple répression wala est-ce que du du un impact ci étude non même pas parce que gis euh, na nga ni parce que nous xam na ni euh, comment dirais-je priorité bi quoi xam mm-hmm. parce que étude moom boo ci nekkee nii xam nga ak rab bi nii boo koy def nii benn instant tamit xam nga da jox étude yi moom quoi. Mm. rawatina instant bii nii xam nga mooy loolu da ngay xam maanaam ni ngay ni ngay joobee rek. waree mm. facilement dañ ciy génn. mooy loolu mais boo jiitalee action yi si kanam rek xam nga mooy loolu benn instant da lay handicapé quoi parce que boo ci nekkee benn instant nii hmm. gars yi bëri mën na ni booy bi boo xamee ay jàng jàngam day yàqu action yooyu noonu quoi hmm. mais loolu soo soo ko dee bàyyi xel xam nga xam ni ngay ni ngay ni ngay doxalee quoi ok te noonu ah, ah, comme moom nu ko waxee rek hmm. parce que affaire bi tamit mën nañ ne passe la quoi mais mën nañ ne andi tamit loo xam ne yàlla xam doy na jang bi mooy priorité mais jàng beeg rab bi tamit mun nañ koo boole. Hmm. lépp planifié la. waaw mais attends bu fekkente ni tam comme par exemple xam nga tamit euh, musique euh, mën nañu wax que ni mm, carrière la sens la. parce que tam des fois mën nga génne benn tube mu cartonné. cartonné waaw nga commencé am benn euh, ay succès bon fans yi nekk sa gën télé di la solliciter rek di la solliciter kala après nan nga mën a def ak études yi comme par exemple bon da ngay favoriser études wala musique bi ngay favoriser instant boobu. non mais boobu am da ngay poser balance wala la fay demee. <laughs> si comme tamit mun nga dem benn es moo tax dañoo war a profité quoi. Hmm. am bac bi dem suñu yoon xam hmm. balaa yàlla def succès bi ñu am lu ñu bëgg. Hmm. ba suba succès bu amee rek dañu dañu xam nu ñu ko mën a gérer quoi. mais actuellement mi succès bu amee rek. day xaw am coono quoi day xaw a métti. ok euh, noonu lay demee comme ni ma leen ko waxee woon euh, euh, tey dama am ñaari invité mën nañ wax que ni Amsa Ka Sick la ak. uh, Famusta. Okay.